Sénégal ci lu jëm ci wàllum fexe ba ndaw ñi am li nga xam ne mooy seen première xëy daat nañu wax tamit lu jëm ci wàllum crise économique be Covid bi nga xam ne moo fi jara loole nag laaj na situation xale yi ñu xoolaat ko bu baax a baax te situation xale yi bu ñu koy xoolaat dafay laaj ab taxawaay boo xam ne bu mat sëkk lay doon ñaar fukk ak benn yi nga xam ne forum du premier emploi daan na koy am président ba ñu jóob daan na si dellu si waat daan nay wax tamit xaalis nga xam ne moom lañ ko organisé boobaak léegi jege na ñaari milliards yoo xam ne dugal nañ ko ci organisation bi waa ci fukki commandement yoo xam ne daat nañu koy fësal ñoom waa MEDES njort nañu ne bu ñu créé woon ay comité locaux ci commune bu nekk loolee dina gën a mën a tax ndaw ñu ñu mën leen a encadré waaye tamit wax nañu ne structure agence yi ak délégation yeeg fonds financement yi loole lépp dañu ko waroon a boole su ko defee yombal ndaw ñi ngir ñu mën a am financement ma ngi ci yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien Innocence Tam Ndiaye au conseil dialogue social ak Mouhamadou Thioune mi nga xam mooy secrétaire général ministère de générosité loolee lu leer la yéen kaay gi da Les Échos xëy duñu xibaar naan ñu bëri na ay maire yoo xam ne jamono ji installé nañ leen waaye lu jëm ci wàllum parité bi bëri na ñoo xam ne respecté ñu ko journal bi di bés bi xëy duñu xibaar naan ñu njiitul Pastef di Ousmane Sonko daan ñu koy installé ni ki démb sa diwaanu Ziguinchor yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ko dëggal ak L'Observateur ak Sud Quotidien Ousmane Sonko daan nay wax ak ñi nga xam ne ñooy ndawi Ziguinchor yi nee leen bu leen ma wax na ma Jakarta rek moo fi am bëri na lu fi am loo xam ne war nañu see mën a liggéey gox bi mbay mi loolee xale yi war nañu see góorgóorlu bu baax a baax lu jëm ci wàllum sàmm gi wàllum élevage loolee ndaw ñi war nañu see jublu bu baax a baax Ousmane ndaa di wax ndaw yi Ziguinchor na leen nag am naa nag ab programme bu baax boo xam ne dinaa leen accompagner waaye nag il faut que ñu liggéey journal bii di Vox Populi nee na ndaw ñi nga xam ne ñoo dëkk Ziguinchor baye boo ñu waajal liggéey ndax Ousmane Sonko mandaam bi yëpp maanaam liggéey la Ousmane Sonko ci journal bi nee na nag nekk maire du loo xamante ni maanaam da ngay nekk di tambambaloo nekk maire jaamu yàlla la te nag ñi nga xam ne ñoo la wóolu ba dénk la ñooñee waruñu laa gën a gore yéen i kaay gi di Vox Populi nee na Thérèse Faye danañu koy installé ci commune bu Diarera yéen i kaay gi di Libération moom tim xëy diñu xibaar naan ñu Saliou Sambo mi nga xam ne moo jiite département bu Mbour moom tim daan nañu koy installé waaye nag annoncé na nag ay projet yu bare bare bare fi xam ne mooy Mbour Aliou Ndoye maire bu Dakar Plateau moom tim daan nay wax li nga xam ne moom la bëgg a def Dakar Plateau waaye nag nee na boo xam ne maanaam bu dëgër këcc boo xam ne danañu ko amal ci yoonu Dakar Plateau Antoine Diome réew mi démb ma nga woon ca Poroxaan daan nay sàkku ci sëriñ Muntaxa ngir mu ñaanal Macky Sall ci réew mi waaye tamit sàkku na ci sëriñ Muntaxa ngir mu ñaanal Macky Sall ci nag Union africaine gi nga xam ne moom lañ ko dénk bërki démoo njaay yéen a kaay gi di réew mi ko di cee nee na njiitu réew mi di président Macky Sall nee na nag gaynde yi dañu leen di jox ay terrain waaye nag ñi nga xam ne ñooy lébu yi lébu yi lébu yi lébu yi ñoo ngi alerte ñoom nag nee nañu seen suufa moo xam ngor la wakaam wala yoofa na si Macky Sall def doucement na si def attention équipe nationale yéen a kaay gi de la témoin xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall daat nay teg loxo lu toll si huit hectares ci école des officiers de la gendarmerie Macky Sall jël na fa huit hectares yéen a kaay gi di vingt quatre heures daal di xëy nag dañu xibaar naan ñu dund gi jamono ji bu gën a yokk gën a métti ci réew mi bu mu bett kenn surnal bii di la mandat nee na nag ginnaaw coupe d'Afrique bi waaw xumbaay beeg mbumbaay bi waaw loolu lépp waaw ginnaaw loole nag nañu delluwaat nag ci dund gu gi ak njëg yi xam ne dafa yokk ba maara de tali a ak grève yi nga xam ne munta ñàkk ci dëkk bi yéen a kaay gi xëy duñu xibaar naan ñu ASP jamono ji ñoo ngi waajal nag am marche nationale journal bi di Dakar Times nee na Salif Sadio mi nga xam ne nag moo jiite rebelle yi way fippu yi jamono ji pare na ngir négocier yéen a kaay gi di Libération nee na building administratif moom ñu ci wax building administratif ndax ay milliards yu bare bare bare la ñu def ci building administratif te ba léegi ni juróom benn weer a ni hors service maanaam kenn nekku fa jamono ji demul cee nga dikkul a ga nga xam ne moo fa amoon ba léegi ni daal maanaam building ba doxul te ay milliards milliards lañ fa dugal waaye nag mbir mi nag amul kenn ku ñu sanctionné maanaam topp ñu kenn sax yéen a kaay gi de la turbine xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall neexul ba neexul waaye nag ab président bu stress la ndax Macky Sall jamono li nga xam ne moo gàllu caw ndoddam loolee moo bëri bu weesoo nag Union africaine gi nga xam ne moom lañ ko dénk ak nag sous raison bi réew yu baree bari dañoo am ay jafe-jafe bu loolu lépp passé conflit politique bi nga xam ne moo am ci dëkk bi ak nag dëkk bu métti beeg garaw yeeg coono